yore woon léegi yi depuis 6h30 ci euh, douceur matinale bi alors Xooxaan donc bonjour maa ngi lay nuyu. noo def bonjour Aïcha maa ngi lay fay maa ngi lay ziar bu baax. delloo ziar alhamdulilah di ziar Salma. ak Aji Kuna. Mhm. di nuyu ak ziar sénégalais yi ñuy seetaan. di nuyu suñu gan Cheikh Ndiaye. mu ngoog suñu gan euh, tey ci l'invité actu di Cheikh Ndiaye nekk porte parole des travailleurs licenciés euh, des ciments du Sahel ñi nga xam ne ñoom ñoo moom la ñu euh, dàq ci entreprise bi di ciment du Sahel moom la ñu dalal Cheikh Ndiaye ñu ngi lay nuyu baax baax. yow maa ngi leen di salaamaaleykum maa ngi leen di fay yéen ñëpp mhm. ku ci ne sa tur sa sant. ñu mhm. jaajëfal di rafetlu tamit ci li nga ñuy invité fii ci plateau bi. Mhm. incha allah alors waaw mel ni euh, proche nga sujet bi ba noppi mooy euh, Cheikh Ndiaye muy euh, ki yor rek kàddu ñi nga xamante ni ñoo doon liggéeyee ci entreprise bi la di les ciments du Sahel te ñu daal di leen fay dàqe alors ñu bëggoon xam rek déjà ana lan moo waral ñu daal di leen licencié fi nga xam ne mooy ciment di Sahel. bon ciment du Sahel dañoo licencié ci wàllu syndicat lañu fa dàqee. ndax si man sa bërëb boobu dafa dafa nekk bërëb bu doy waar depuis l'an ba léegi mu nekk fa ci ci ci bërëb boobu nekk euh, nanguwul nanguwul créer syndicat depuis l'an 2000 ba jusqu'à 2023 syndicat taxawu fa ci moment ci 2023 bi nag ci lañu commencé créer ci 2023 bi nag ci lañ commencé créer syndicat di ko taxawal euh, ci bi bi bi ñëpp affilié ba ba bokk Euh, si ni ngi wu ci seen si Cheikh Diop CNTFC bu ñu jëlee document yi nag indi ko usine euh, léegi ñoom nag ñu jël document bi kenn ku nekk sa département ñu ñu jox ko say éléments yi nga xam ne ñoom ñoo bokk léegi ñun nag suñuy département rek laa gis boo xam ne ñun si lañ am si am si li am ay parties licenciées muy département asséchage ñoom rek ñoo nekk fa nekk mu ne di licencié. pour di àqu di yéen ñi nekk ci département boobu. département asséchage ñoom foofu boo xoolee foofu la ñuy chargé camion yi. camion yi foofu la ñuy chargé. d'accord yéen yéen ay euh, gannaaw bu ñu defaree ciment bi ba pare yéen koy chargé ci camion yi koy acheminé ci kii yi quoi ñoo koy enfilé ci machine yi ci saag yi après mu doog a dem ci enrimeur ñuy chargé camion yi si la camion yi doog a génne dem livré ji voilà alors bi loolu amee ndax jot ngeen rapproché wu administration bi pour mu jox leen wala boog argument bi ñu leen jox rek mooy da ngeen créé syndicat après ñu dàq leen bon euh, mhm. euh, bi daf ñoo woo kenn di di convoqué par trois personnes. d'accord bu la koy laaj lan moo tax ngeen créé syndicat da ngeen nekk ci kër goo xam ne boromam buggul syndicat mais ñu ne ko ñun dañoo nekk suñuy droit te am te travailleur boo gis am nga droit syndiqué. mu ne nag da ngeen fee ne ci kër goo xam ne boromam buggul syndicat lan moo tax ngeen fiy créer syndicat soit ñaari mbir moo am suñu chef département mooy wax loolu de. Mhm. da lay convoqué ba mu ne la da nga naan. bokkuma ci syndicat bi wala biñ may dugal ci syndicat bi xaw ma woon ne kaa ci ci affaire syndicat lañ may bëgg a dugal. ok dañ leen xoqatal. waaw dañu jaay doole dañu xoqatal. comme oo ku nekk da nga naan ko damaa damaa may maintenir sama position ndax am naa droit syndiqué léegi nag mu ne loola léegi nag day jël note bàyyi dem léegi bi ñu demee ba weer bi di waaja a dee si la ñuy oo ñun bi ñuy oo boobu man maa ngi Kaolack si lañ moo ne loo Cheikh foo ne ma leen maa ngi Kaolack. ñu la soxla nañ la man ne ko lan moo xew lu ngeen may doyee ma ne ko rumeur bi nekk usine foofu daw man yëg naa lépp mu ne ma kon baax na ci laa ñëw dégg quelques éléments yu ñu licencié. d'accord vous êtes au nombre de combien. Euh, six personnes la njëkk a licencié. ñu dolliwaat yeneen trois. muy neuf personnes. muy neuf personnes la ñu licencié. ñeneen ñi nga xam ne xëy na euh, jotoon nañoo affilié nag wala ñooñu moom dañoo mujjee euh, def recu reculer wala. reculer wuñ moom si boppam moom moo dem ba xam ne li muy def tegu ko ci yoon chef bi mm-hmm. parce que xam na ne après fi mu jëm du ko arrangé. Mm-hmm. moom moo tax actuellement nii mu teggi tànkam di dawal masla ak gars yi pour gars yi jéem a bàyyi syndicat bi wala pour ñu jéem a bàyyi affaire yi mu ndànk ci suuf mais ku mu oo ku ne da ngay maintenir sa position nag damaa maintenir naa droit syndiqué. te travailleur bu gis woon am nga nag droit nag syndiqué te syndicat nag ci ci loolu ci loi moo ñu ko may mais ñoom dañoo bañ ne syndicat du taxaw bërëb boobu di cimenterie ciment di seel alors que moom moo tax ñuy def nag su dul noonu hmm, d'accord alors bi ñu leen di licencier ban xeetu contrat ngeen amoon ay euh, CDD la woon prestation wala ay CDI ñun bi ñuy licencier CDD lañu nekkoon ok benn munoo nekk ci bërëb 2015 nga nekk fa ba 2019 peut être maximum boo xoolee 5 ans ci journalier te yow ngay liggéey chaque jour te poste bi nga nekk boo xoolee normalement ci yoon loolu poste boobu dañ ko war a signer contrat 2015 ba 2019 nga nekk di ko journalier ci usine 5 ans maximum boo xoolee léegi bi ñuy signer contrat c' est en 2019 1er août septembre 2019 la ñuy signer contrat CDD ba 2023 4 ans CDD. nga xam ne bu jeexee dañ koy renouveler wala. renouvellement bi sax boo ko déggee maanaam. premier mois bi deuxième mois bi lañ koy toppatoo lañu ba ba ba daanaka ba sixième mois bi li ci des sax yow dootuñ la wooti yaa yaay dem ba jékki-jékki ne man mi kat ñii gën nañ ma woo. nga jaar direction ne leen da ngeen maa gëj a woo pour ma renouveler sama contrat. après ñu ñu si boobaa. dañ ah, koy soxla lañ lay oowaat ne la mhm. kaay nga kaay nga signé. mais yow yaa leen koy fàttalik mais dañuy dem ñoom ba ba génne ko seen xel nga xam ne yow mii carrément lii tegul ci yoon. ok mais entreprise entreprise Sénégal yi nag war nañ war nañ leen xoolaat bu baax franchement ndax lii métti na aussi ci wàllu jooju est-ce que waaw disons inspection du travail est-ce que am na ay visites yoo xamante ni xëy na euh, dur bi ngeen fa am ñëw nañu ngir saytu si li nga xamante ni mooy anam yi ngeen di liggéey ak nekkin gi daal. maanaam boo déggee ñu naan la visite tey am na fa. Euh, dañ naan la tey ministre dafiy ñëw. ci dégg-dégg nga koy am tey ministre dafiy ñëw. léegi yow euh, alors que moment bi ñu naan la tey visite am na fi ministre dafay ñëw dangay gis comment ñoom ñuy jël usine bi di nettoyer. waaw di tout di préparer. Euh, te alors que loolu yow da lay jëlee sax kaw. et puis yow ñoom li war si ñoom carrément avant ministre bi ñëw duñ ko def parce que yow da yaay jëlal sa bopp dàll. yaa jëlal sa bopp masque yaa jëlal sa bopp casque ñoom amul leen loo xam ne ñoom yelloo nañ ko yow di la ko jox. parce que am naa vidéo bu ma gis yéen équipement euh, de protection individuelle bu bu bu baax bu adéquat te ciment ngeen di ngeen di ngeen di ngeen di ngeen di liggéey mu nekk loo xam ne day impacte ci seen wàllu respiration ci seen wàllu sax peau parce que day yàq day yàq ah, deru yaram produit chimique waaw ah, baaxul voilà c'est ça dañoo amul lu ñuy def rek moom moo tax mais tey koo ci ne da ngay gisee nit di liggéey sax ba nga gis fi teg saa gi nii commencé xotteeku te yërëm di xotteeku te yërëm boobu moo ko jënd si xaalis bi du ñoom ñoo lay jox te nii bi ñu jox sax masque casque tam duñ la ko jox ak par rapport ak yeneen usine cimenterie yi tey soo ko sim doo fa doo ko def balaa ngay dañ naan la takal takal casque jox la masque na la yéegal boo amul masque duñ naan la wàccal boo amul casque ñu mais ñoom duñu def loolu balaa ñu la koy jox soit dañ naan la visite am na génnee casque yi génnee masque yi génnee gilet yi gaaw solal ñu ko jéem ngeen rapproché waaw jéem ñoo rek pour maanaam pour ñi ñoom ñoom buñ ñëwee ñëwoon ñu voilà ñi ñu ngi si téléphone ko alors que ministre boobu noonu tey jàmm man de ba ma fa nekkee ba bañ fa nekkee ñun ba léegi mosu ñoo gis ñu ne li kii ministre bi moom moo fi ñëw dañ koy dégg turu ministre rek moo fi ñëw ministre bu ñëwee ñoom ñoom ñoo koy dugal seen biir seen seen bureau lañ administration lañ koy dugal alors que du wàcc sur le terrain du def visite bi mu war a def liñ ko fa yóbbu liñ ko fa nekk dama xooli ndaw réew ya fa nekk ci mantari ba du ko def bu ñëwee ñoom ñoo koy dugal seen bureau administration toog ba ci kanam jékki-jékki génnaat ñoo ñoom ñoo xam ñun noonu lañ noonu lañ koy jege mm. après bu ñu demee ñu nanguwaat affaire yi ñu jëlaat équipement yi leen joxoon jëlaat masque yi jëlaat lépp ah oui alors yaa ngi doon wax euh, au niveau des euh, des ciments Sococim euh, donc est-ce que def ngeen comparaison entre yéen anam yi ngeen doon liggéey ak xëy na yeneen employés yi nga xam ne ñu ngi ci yeneen cimenteries yi. man tey xam yan conditions la ñuy dund. que man. Mhm. boo gisee tey may comparer ciment du sel ak Sococim su ma amatoon ay preuve ci Sococim doo fa nekk bi biñ ma licencié benn weer ak laa toog yàlla ak ndimbalam ma dem Sococim mais damaa gis Sococim ni ñuy liggéey. te dangot ña fa nekk su ñuy suñuy dëkk ñu ne ñoom ñoo bokkoon woon nekk Sahel ñu jógee fa dem fa su ko tey man mi tey bi nga xam ne tey man fa laa nekk di liggéey man dañ ma jox équipement complet ma ci actuellement même su ma nekkee sax même fi ma ne nii la mais dañ may jox équipement complet dañ may jox dàll dañ may jox masque dañ may jox casque li war ak ñoom ñu li ak man ñu ngi koy def. alors par rapport tamit jamono ak fay bi bokkul sax. sa fait deux même su ko bu nekkul tamit si ay normes man. mënoo di naan leen na leen ndoxu xorom ñëw di naan ndox mu set nga buccee xëpp suuf loolu mënul nekk. mais tey jii dàq nañ leen am ngeen liggéey ñu bëri ci yéen jot ngeen amaat liggéey léegi lan ngeen bëgg euh, au juste. Mhm. non ñu bëri amuñ liggéey. Mhm. parce que ku nekk boo liggéey da ngay ñaan yàlla nekk ci fonction bu baax. oui c'est parce que comme dégg naa sànq dagguma la sax mais mu ngi naan Sococim déjà. Euh, kii la hmm. foofu journalier. kon ah, dafay recommencer waat à zéro. dafay ah, recommencer waat à zéro alors que 2015 la war a defee pour soog a il a expliqué 2015 ba 2019 journalier la nekkoon. 2019 ba 2024 mu nekk kon c'est-à-dire boo delluwaatee Sococim ñu bëgg la faa tegaat zone euh, euh, kii. journalier journalier simple sama yeneen collègue am na ñoo xam ne tamit liggéeyuñ dañuy takkale. nii ñu ngi ci moto cag-cag bi ñii am na koo xam ne tey dafa âgé mënatul liggéey muy këram toog loolu lépp ci cause syndicat bi moom moo ko waral ndax ñoom ñoo ko licencié dàq ko sans droit bi ñu koy dàq joxuñ ko indemnité joxuñ ko dara dañuy jékki-jékki arrêté contrat yi noonu licencié mais est-ce que loolu mu wax aussi am na solo excuse-moi mooy ndax da ngeen def poursuite judiciaire bëgg ci am voilà voilà c'est bon pas ok bëggoon wax rek ndax autorité yi déjà euh, est-ce que yëg nañu jafe-jafe yi nga xamante ne xëy na euh, yéen a ngi koy dund foofu au niveau des ciments du Sahel non actuellement autorités yi nga xam ne maanaam ñun mën nañu xam ne ñoom ñoom yëg nañu ne gis Guy Marius Sagna mu ngi ciy def jéego bu am solo parce que envoyé naa le document sax moom mu ngi ciy def jéego bu am solo moom mu ngi ciy xeex mu ngi ci combat bi dem nañ nag fii xam ne moo war moo yor suñu inspection du travail Thiès dem nañ fa mais bi ñu fa demee yóbbu ak ak ak suñuy document ñoom bi ñu xamee ne carrément euh, usine bi moom tegul ci yoon tegul ci yoon xam nga euh, état bi fi nekkoon yaa ma gën a xam lu yàlla xam doy na waaw liggéey bi fi nekkoon yàlla xam te na après léegi ñoom ci lañ ci lañ xam ne ne lii jëmul kër ci lañ sàkkal pexe inspection bi jël ko toxal ko yóbbu ko dakaar mhm. dañ ko affecté mhm. pour suñu dossier bi rek moom moo tax julee ko cees affecté ko yóbbu ko dakaar ah léegi nag laataa muy jóge na ne laataa mu fiy jóge ci la jël dossier bi nag buukale ko ko yóbbu ko procureur bu Mbour. Mm. mooy kon yéen da ngeen a jàpp ne ci ancien régime bi dañ leen a jaay doole ngeen bëgg a régime bu bees bi. parce que tey li ma jàpp tey mm. am na doole boo xam ne wala am na maqaama boo xam ne tey mën naa jóge fële ñu ñu ma plainte mais nag damay wax dama leen dressé ne man aw lu may ragal ci ñoom. Mm-hmm. parce que jëluma seen alal sàccu ma leen fennu leen. au contraire ñoom ñoo ma yoral ndax dañoo ñu sans war ñoo fay suñuy indemnité war ñoo rappel suñuy xaalis kon ñoom tey bu ñuy jéemoo naan dañuy jéem a xotal alors ñoom dañuy nax seen bopp loolu ko man boog aw ma ragal ci ñoom amul lu tiit ci ñoom gisuma ko. concretement lan ngeen di xaar ci kilifa yi nga xam ne jamono jële xëy na ñoom ñooy soog a fallu ci euh, ci nguur gu bees. parce que su ma li ñu xaar ci kilifa yi nguur gi. Hmm. li ñu ñoom dafa bari. déjà de un contrat semaine de semaine de seen yi baaxul. Mm-hmm. amul lenn loo xam ne li na ak inspection du travail amu ci contrat yi ñoom ñoo koy defal seen i biir ko doon def inspection la la nekkoon jamonoy Abdoulaye Wade suñu koy wax inspecteur Souleymane Ndong liggéey booy retraité naar bi jël ko teg ko fa moom mooy def sale boulot boobu noonu liggéey contrat yooyu noonu. ay contrat yu baax contrat yu bon lay def. wala yoo amul fenn amul lenn loo xam ne li nga xam ne lii signature inspection travail laale na ci amu ci. yow yow employé bi yow yaay signé. ak ki nga xam ne ne moom mooy moom mi nga xam ne moom mooy def ko bi yow yaa koy signé ak hmm. CDD le salaire c' est pers personnel mais mbaa jaroon na ko déjà. Uh-huh. <laughs> ndax bu fekkee coono yi mu wax yëpp uh, ànd na ci ak salaire boo xamante ne c' est un bu. xam nga maanaam dérisoire moom day xaw. salaire yàlla xam na ko loo liggéey fajoo ko mbaa nekk. waaw loo liggéey fajoo ko boo liggéey itam doo jóg ci ay bor semence ñoom ci ci bor rek bugg di nekk. Uh-huh. port rek lañ lay tegal. Mhm. moom doo mës a jóg ci port. parce que balaa nga balaa nga mën a jóg ci port fekk salaire bi baax ay salaire ay cent mille wala ay salaire ay mhm. di nekk ci usine boo xam ne day produire par maanaam maximum maximum boo xoolee boo xool ay quinze mille tonnes. Mhm. wala ay dix sept mille tonnes par jour. muy fay ay salaire semaine amuñ amuñ amuñ heure supplémentaire. amu fa. permis de risque amu fa. prime de car amu fa treizième mois amu fa. IPM feebar faju IPM fa yàlla am IPM maanaam boo balaa nga xam ne yow ne peut être IPM bi ñoom boo même ordonnance bu nekkoon tey cinquante mille bu ñëwee à la mois bi mois noonu la ñu koy daggee cinquante mille à la rigueur amul sax xaaj daf ko par étape étape ñu koy defee. ba ba léegi actuellement suñu bulletin ak suñu ak ak ak suñuy contrat mënuñ la wan ne yow lii sa numéro IPRES mu ngi ci. am na ku ñu dàq suñu benn euh, CDI la ka wax ne CDI la. mu ngi may dégg ab jigéen la biñ ko dàq biñ ko jaay doole xootal ko dàq ko dafa dem ba inspection du travail xam nga lu ñu ko wax sa tournée ko fi te ñu ne ko ko am embauché la ab CDI la dafa dem foofu ñu ne ko sa tournée fa. ndax bi loolu bi loolu amee seen yeneen collègues yi disons ñi nga xamante ne xëy na euh, dàquñu leen est-ce que ñoom euh, am nañu benn soutien walla solidarité boo xamante ni euh, xëy na am nañ ko vis-à-vis de vous. non suñu collègues yi nag moom wax daal ñoom li mën ñu koy def parce bi ñu arrêté ñoom ñu ngi doon jàppale mais nag bi ñu demee ba si kam ñu ne noonu loolu grave parce que xam nañ ñun li fa nekk. c'est parce que boo xam boo fa jaaree nga xam li fa nekk xam li nga doon fayeeku kooku boromam mënul jékki-jékki jël salaire am di la ci jox dara. seen leen loolu garaawul bàyyi leen yéen gérer ñu ñu gérer ngeen bàyyi ñu ñu nekk ci kombaa bi. par rapport ak euh, je crois CNTSFC nga wax ci ngeen affilié wu. ñoom lan mooy jéego yi nga xamante ni xëy na euh, secretaire général Cheikh Diop amal na ko jëmale ci seen jafe-jafe. waaw moom mu ci ko moom mu ngi ci combat bi Cheikh Diop waaw li li li li nga xam ne moom moo occupé document bi yëpp li ko war moom mi ngi koy def ndax document bi actuellement nii lenn moo ci des muy euh, justice moo ci des actuellement nii. procès taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw procès ñu àtte ñu xam parce que ñoom dama dama damaa xamul nag document buy taxaw buy traîner justice plus de 4 mois maximum ba 5 mois ba léegi procès mënul am lan moo waral loolu. ci nguur bële la woon non wala wala donc disons quatre mois ci derrière ci nguur bële woon. waaw loolu ci nguur lee la woon ba léegi justice ba euh, dossier boobu ba léegi mu ngi tribunal ñu teg. d'accord projet mënagul am. waaw xam nga nag justice moom kenn du ko dicté ay temps. parce que ñoom seen i euh, tribunal tribunal du travail a dañuy bari également côté boobu moom. mun nañu waaw dañ ciy lancer message maanaam comme ministre du travail. mais comme euh, parce que d'habitude wax ne genre genre yu mel noonu mieux vaut régler ko à en interne que di dem ay tribunal ak ay inspection du travail. est que amal ngeen ay waxtaan la bëgg wax waaw est que am ngeen ay waxtaan euh, parti yi mën a mën a retrouver waat jubboowaat. non parti mën a retrouver pour jubboowaat pour loolu balaa mooy mën a am lii faa mu am syndicat bi faa am parce dañ fa nekk ay chef yoo xam ne dañoo jaay seen ngor maanaam ngir xaalis. waaw dañ ne waaw suñu chef de car yi du pas ay chef de car suñu chef département yi. Mhm. chef de yi ñun ak ñoom ñoo yem ñun ak ñoom ñoom ñoo yem ñoom li ñu war am ñoom amuñ ko. ñun ak ñoom ñooy mais chef département yi ñooñu ñoom ñoo ñuy xoqatal li ñuy jaay doole. parce que moom bi bu la wooyee biram daan naan la euh, génn ci kii bi maanaam ci ci xam nga lu ma ne ginnaaw na yéen man bi may woo dana ma da ngeen def lu leen neex man aussi damay def lu ma neex. du mujj fenn da ngeen fii coow ñu ndey gendarme ñu nokk leen mu jeex moom si boppam chef département man moom. moo la wax loolu moom wax loolu. kon xam nga kon ñoom kon ñoom pare woon kon ñoom pour ñoom syndicat am. c'est compliqué au-delà de jafe-jafe yooyu ci wàllu liggéey xëy na parce que bu nekkatul ñoom sax xëy na ay ñeneen euh, ay yeneen sénégalais ñu ngi foofu di fay liggéeyee euh, yeneen yan yeneen jafe-jafe ngeen di jànkonteel ci wàllu liggéey ji ci main d'œuvre beeg ñoomin seen. gis nga boo demee ci cas journal yooyu da ngay liggéey ba am ay cinq jours walla 6 jours nga dem pour fayeeku. si ma li gën a li gën a métti li gën a métti maanaam fayeeku bi moo gën a métti sax liggéey fayeku bi fayeku <laughs> bi moo gën a métti pour pour liggéey bi da ngay dem ba war taxaw ne da taxaw si rang pour wax pour war a fayeku te li gën a war maanaam journal lu mu bon am lu ñu leen ay benn bout de euh, bout de leen bindal mooy mbalifolde yi la leen bindal seen papier seen jour de travail ak avec bic amul kase amul dara tey bu gaañu woon tey amul lenn loo xam ne tey nit mën na cee mën a sukkandiku ne kii journal yi ciment du ciel la wala la la journalier li gën dem taxaw pour jox sa cinq jours ñu ne la quatre jours nga ak ñoom dem ci chef nee na trois jours laa def quatre jours te yow mi mu ne la man quatre jours laa wala trois jours laa gis ci journalier yi sonn bu bëgg yow ay 4 heures matin dem di ko liggéey xoolal pendant covid 19 bi bi muy métti lépp ñu ngi fa te xool nga état bi gis nga li ko naar bi jox ci xaalis dégg nga ko ñun moment boobu ñun gisuñu ci dara boobu yëpp ñu fa te dañ leen gont 18 heures si ngoon la ñu gont wàcc 7 heures du matin. Samba oh. premier jour Covid 19 bi. bi naan couvre foo am na dafa tombé woon man maa gont sama kaar bi ñuy liggéey ba 21 heures lañ ñu woon nañu couvre foo dafa am nee nañ wàcc amul xamul lu ñu envoyé ay sandis la ñu envoyé benn sandis ku nekk benn sandis man sama sandis dañ ma ko wax ne dañ ma koy booleeg benn waay ma ne ko noo garaawul na ko jël. ci laa gën dem jëndi lekk. respecté wuñu restaurant yi ñuy lekkee baaxul ci ay mbaar la ñuy tegal ci biti alors que ñoom ñu defal ñoom seen i seen i ma seen lekkekaay ñoom su bu baax or na ko ba mu baax tabax ko ci biir usine bi doo fa sax ñeme teg sa tànk parce que prix parce que prix ba ñuy jaayee sax yow amoo njëgam parce que boo ko defee boo ko defee sa salaire yow doo ko doo doo ko mën a jëriñoo loolu moom moo fa nekk boo nekkee tey nga nekk ab tey salarié te ne dangay ngay fekk tey mooy béytaas ki lay fay day tëdd këram de yow nga fanaan di liggéey ba bër set nga war a xëy ñibbi 7 heures moom mu war a xëy si fanaan si njabootam ba bër set war a ñëw pour pour fay la da ngay dem bureau mu na la non fayagu te yow nga fanaan liggéey ba bër set nga xaar sa salaire mu ne la man fayagu ma wala damay naan café wala 10 heures jot wala nangam sax yow nga fas yéene toog nga na nga fas yéene toog yow ba 10 heures ba mu pare moom li mu war a def mu doog laa fay sa xaalis. lii du liggéey moomu jaam la. Ah? waaw métti na xëy na kilifa yi ñu ngi dégg. xëy na dinañu jël matuwaay yi war euh, pour mën a saytu problème bi ba xam. Euh, lan la ak naka la ak yan taxawaay. lu ñu ngi fay jéem maanaam di fa jéem a créer pour maanaam ay élection xamuñ nag ndax élection délégué la xamuñ ndax élection pour élection délégué pour affaire syndicat la xamuñ ndax dañoo bëgg dañoo a nangu syndicat bi ci suuf mais bi nañ seen note de ba pare mais gisuñ boo xam ne lii lié na ak nañ seen élection ay vote loolu damay lancé gars yi tamit ñoom si loolu nañ bàyyi xel ci baax parce que ñoom façon saay-saay bu nekk ñoom capable nañ ko pour def ko il faut ñu yeewu si note de service boobu ñu leen lancé te vote bi tamit même koo xam ne da nekk sa kër sax da nga war a nga war a bokk ci vote bi nga am matriculement jëlal sa paas nga dem voté ci ndox loolu mooy tax ñu am ndam ci kaw ci seen kaw xaw ma nag xanaa da ngay ragal ñoom ñu teg xëy na seen ay pion pour ñoom ñu occuper syndicat bi lañ lañ dëkk suba ak ngoon ci kaw pion lañ dëkk ñoom moom loolu moom loolu moom seen mbaax la moom seen i pion moom moom chaque jour suba ba ngoon chaque jour bu ñu xëy suba si ngoon suba ba ngoon si lañ dëkk parce que tamit euh, boo gisee ñoom ñu kere ñu ñu génnoot boobu noonu damaa xamul ndax liñ gis Birame Souleye ak état bi dem sama doolaa. bettaay bi waaw bett leen. waaw dama xamul hmm. nag moo tax ñu gaaw bëgg produit yi bu bëgg a créer élection déléguée ci ci ci samedi bii le 22 juin bii. Hmm. damaa xamul nag lan moo waral loolu noonu. Hmm.

ñëw dóor embauche parce que loolu moom mooy yoon fekkente ne nekk na ci ay kii donc c'est c'est compliqué il faut qu'on en parle merci Xoxaan sujet bi am na solo am na na waa soko sim ñoo génn waaye eh, ñiy tey la tey la 6 c'est ça mhm. ba fi may wax ak yow ñoom jotuñu avance tabaski loolu gars yi ñoo la ko yóbbante dafa nekk waaw dafa nekk ñoom man dama fa nekkoon balaa jot balaa ñu jot avance tabaski deux jours de la de la fête de la koy jox te li gën a yées nag cimenterie Sococim bi nga xam ne tey prestataire la am daa am sous-traitance ñoom seen sous-traitance bi 175000 lañ leen leen jox ñoom ñuy joxe 80000 francs ak xar fi mu toll ak xar fi a borom en tout cas Cheikh Ndiaye ñu ngi lu baax a baax may fàttali yaay porte-parole du Sahel tey nga doon indi fii euh, béeg ci seen jafe-jafe euh, léegi-léegi sans plus tarder dañuy dem jëli la chronique du jour ma ne ko añoo añoo ngay am